nit dana am problème ñëw ci yow nga xam ne ndeysaan waajuram manqué lu ko dara dara dara comme maanaam confort oh, kan moo de bien-être papa oustaz dama ne mais mais kontaan naa ci français bi wallaay dëgg la confort bokkul ak bien-être ahmada si jamil mhm. sama baay bii ci Fass mhm. ma ko wax bés ni ma Mouhamed confort waaw ak bien-être duñu benn billaay dëgg la sëñ bee ma ko wax ma jàpp ñaari baay bi ak contexte bu mu ko waxee euh, euh, euh. loolu nag sa xam-xam eggu fa maanaam journaliste rek nga yam maanaam oustaz Mohamed bu muy nekk day yëkkati kàddu yu am waaw Mohamed Mohamed mais comme sa xam-xam eggu fa bul ko àtte may may ma ma daaneel xam nga lu tax li mu wax daf ñuy topp ba yowmal xiyaam ndax nit dana am lu nekk nit dana am lu nekk malheureusement ah. euh, temps bi xoj nañu mais li ma bëgg wax mooy confort ak attention ak affection du benn bu ñu koy wax mooy jamono day dox mm-hmm. woy juru tey nañu xam ne xale yi dañu am longueur d'avance ak technologie bi am léegi donc nañuy waxtaan ak seeni njaboot ngir technologie bi bañ leen jiitu ci ñoom loolu rek la euh, Voilà, on de sagesse et sens de l'écoute du dirigeant. ñu permettre la nga remercier ki la solal ay su gaawee ñu dem parce que waa Régis ñu ngi teg pression aliment Lama couture Lama nekk Lama boutique. Lama boutique nekk marché HLM Lama. d'accord moo ñu solal. Euh, waaw moo ñu jox basin bu rafet bi. Mhm. mais Pape Mbaye sama tëyër fële ca. Euh, oh. jam ñaajo jam ñaajo Pape Mohamed suñu ah, téer moom moo jaar ci mbootaay yi moo ma yor ñëpp a laaj na ku may ñawal Pape Mbaye jam ñaajo Pape Mbaye la fële ca jam ñaajo mais laa ma boutique marché HLM oh. H&M moom macha allah oh. kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu bu baax Mbaye Fall jam ñaajo maa ngi leen nuyu waa jam ñaajo yëpp oui on te retrouve bientôt incha allah oh. kontaan nañu bu baax euh, ci wuy si bi nga wuy si merci beaucoup. waaw ce ce fut un plaisir bi may ñëw ragaloon naa torop et tout. mais non y a pas de quoi. <laughs> Ah, waaw waaw mais vraiment vraiment vraiment c' c'était une émission sympa ma leen di sant ku si nekk si tur ak santam. jërëjëf merci Benoît merci oh, à allemand bi ci émission bi di doore rek. merci allemand bi ci émission bi. loolu laa ci man. pas allemand mi ci émission ah, bi bi dafa jeex. man man man damaa dégg ah? man lan man lu ma jotee ak kenn. d'accord fii du plateau ñeexum ah? bi day. waaw du plateau ñeexum ñebbe de. daaw baren daaw baren daaw mën naa laa waatal ci barka borom Tuubaa daaw baren bugaan mi koy waaj mais du ñëw. billahi wa ah waxuñu ko fi. mu ngi bu ñëw gis-gis. waaw. waaw. Mhm. ah yabu ko de yabu ah. ko de. ndumbelaan ak yooyu bokkut ak fii de. Ah, loolu lu leeral na ñëw. boo mën ànd naa si. dama ne na Bougane Gueye Dany ñëw toog. bu Bougane bu ñu koy invité bi na nga ko ñëwee wax dara. nga ne ah. boo ko xamee suba na leen dàkk. ñu wax rek mu doon.